asalaamualeykum wa rahmatullah sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér munte ñàkk ma yëkkati ay kàddu yu wolof ngir jotal ko mbooloo mi fi toog ndax sëriñ Tuubaa kat day dëggi dëggi lislaam day dëggi dëggi liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëggi dëggi lislaam jooji nag da koo indi baaxe ko bàyyeek ñoo suñu bopp ñu doon li ñu doon doon ay sénégalais doon ay africain doon ay jullit àqan ba noppi nag ubbiku ba lépp lu baax feneen ñu jëli ko boole kook li ñuy wax loolu yi Mbàkke koy sante sëriñ taxaa xam àdduna gis àdduna gis fi mu toll mu ne li mu gis ne mooy solution bi nga xame ne jiixi jaaxa yi am ci àdduna mooy xam sëriñ Tuubaa sëriñ Touba et la solution moo tax li wundu ay bis bii ñu jëm ay bi tey ngir laayante biir ci xam-xam bi nga xame ne Serigne Touba bana ko fi ndono li nga xam ne Serigne Touba bana ko fi te ñépp war cee mën a ji ëpp na nu nun Sénégal ëpp na Afrique waaye àdduna sépp ko soxla moo tax ñu sos lii ñu sos sëriñ mun Muntaxa joxe ndigal ba nuppi ñaanal ñu bi ñu indee photo yi nga xam ne dañu ko wecciku dane maay njëkk a barkeelu ca yërmande ja ca mbaax ga ca njàmbaar ga mu ne dinaa ca jëndal téeméeri murit saadix yi nga xame ne amoon nañ yéene barkeelu ci ndax sëriñ Tuubaa ab photom kenn mënu koo jënd da ngay barkeelu barkeelu ci téeméeri murit saadix ñu dem mu woom ne loolu kat doyul sax damay bind bataaxal ne bismillaahi rahmaani rahim jërëjëf jëfal sëriñ Tuubaa te yàlla tax loo ci def jar na lu ko ëpp téeméeri yoon daal di signé Cheikh Mouhamadul Muntaha ibn cheikhul basir cheikh mohamadul bachir ibn cheikhul xadim ñu ne boobu amul njëkk photo bi nag amul woon njëkk waaye bi mu ko siñee moom sëriñ bi nga xam ne mooy kooka wecceeku bi nag dinañ ko yokk moom lañ def million loolu lépp nag dañuy génn dabu li nga xam ne moom la sëriñ Touba teg mooy manal sa bopp di defal sa bopp mooy jumaay njaareem mooy jumaay tubaa moo indi raay moom la jëwrin mbàkki yu fay mii jogi ba def fi lu rëy lii di Masaalikul Jinaan loolu ku ko gis xam ne Sëriñ Tubaa amul morom moo dàq jumaa moo gën a rafeti taalube ñoo ëpp xam-xam ndax mooy sëriñ bi moom la sëriñ Muntaxa Mbàkke ci mbaaxam tabaxee université bu mag bii ci Touba ci 18 mois fanweeri milliards ak lu teg lépp murit yi def ko ci loolu lañ leen woo jaayante ngir liggéeyal sëriñ Touba nga xam ne fotoy sëriñ bi ci boppam ñooy defar kërug barkeelu gi nga xame ne ay bagaasam bagaas ñu tedd ñi sosoo ci moom seexi sëriñ Tuubaa yi fa lañ leen di teg looloo ñu fi dajale moo tax ñoo ngi sant bu baax ñëpp ñu fi teew di sant monsieur le premier ministre di ko nuyu di jël suñu nuyoo ci président de la république teg ko ci loxoom ndax foto yi kat maa ngi seeral àdduna da biñ ko korkoralee suñuy dërëm ak suñuy dërëmaat ba indil ko sëriñ taxaa mu jël ko ne na ngeen ko yóbbul président la république ndax moo nekk ci bopp réew mi ku wax ak moom wax nga ak sénégalais yépp ay citoyen lañ ay républicain lañ biñ ko ko yóbbulee mu ne lii kat Sénégal la waroon ndax sëriñ tubaa ñépp a ko bokk mu jël jëf ju am solo bu méngoog lañ ko jënde woon jël ko teg ko ci suñuy yoxo loo yi day dugg ci liggéey bi lii bi mu ko déggee dana kenn du ci jiitu recevoir ñu lim ci war a def lépp mu def ko ñun nag ay cantaakoon lañu ku nu defal ñu wax moom nag def na wax nanu ko ñu ngi ci xaar ñëpp jërëjëf